استقل بشرعه بها يسعد الآوي إليه فيسعد اللهم صل على محمد سيد البشر وسافع المصطفى في البشر ورثنا هدى عنه فأكرم بإرثه ورثنا هدى عنه فاكرم بإرثه فبنزله أفناس حياة وبسه فكم تاب من خلف به بعد خبزه لنا الناس درا سيرقه يوم بعثه ولكنه في الناس للناس خسدوا ci mbokku taalibe yi asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ni ngeen ko baaxoo di gis lépp lu xew ci diine fii ci ba ak li ko wër El Hadji ànd ko ak boroom xew wi tey nag noo ngi fii ci kër sëriñ Mouhamadou Ndaw kan mooy Serigne Mouhamadou Ndaw kenn la woon ci Serigne Thiénaba Serigne Mouhamadou Alpha Seck ci ay taxawaay ci diine ci itteem ci tooli Serigne Thiénaba ba yàlla may ko njaboot tey fii ci biir cene ba am ci njaboot gi ku xam ni at mu nekk mu tànt tàntal rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ren mu jàpp ko ba bu bu ñu tam ba ca suba sa mu di ba ndegam soob na yàlla suñu borom subhaanahu muy kan Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di ko ñu ràññee taxawaayam ci ëttu maam Serigne Thiéne ba Ahmadou Ndaak ci lépp lu xam ni diine itteewoo na ko surtout tagg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ren nag mu fas yéene koo def nam ko daan defee ndegam soob na yàlla suñu borom subhaanahu El Demba Sarr tànn délégation bu ñëw fii ci kër Baye du Ndaw fekk fi njaboot gi ñu fekk fi Serigne alfa ak mboolem njabootu Baye Mouhamadou Ndaw ak soxna Maguette Dia mi nga xam ni mooy wéyjuru Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw kon duñ def lu dul def lu dul wax bàyyi Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw sa xarit sa mbokk sa mag sa ëllëre El Hadj Ngagne wax na ni bis bii nga dëgmal te lu bari war la ci moo tax mu yabal Mouhamed Mboup mu feggoo ak ay ay technicien ràññee ca Serigne Talla Sarr ak mami mi nga xam ni ku ne xam na taxawaayam ci cena euh, bi gi nga xam ni fi la ñuy defe yëfu diine yi mu ànd ko directeur général di El Hadji Alpha kon ba Cheikh Ngañ wax na ni ñëw na indil lii di teraanga bu tukkee ci moom jëm si ci yow boole ko xeeb tey ñaan ci yàlla suñu borom subhaanahu at mu ne yàlla na yàlla gën ko may mu gën laa yët lu ëpp lii mu la jox xeeb na ko baatu xeeb na ko sax laa doon bañ a waaye nag dañu ni junj doy na borom xel kon yaa jàpp naa ni di xam ni indil na la lii su sañoon jox la lu ko ëpp waaye nag bu yoon jeexul waaxusil du jeex kon ñu jébbal la kàddu gi nga tontu sa mbokk El Hadj Ngagne ci kàddu yi nga xam ni ni nañu ko pour ñu ñëw ànd ak réseau point net bu Thiénaba pour yëgal yëgle ni bis daal bisam la ànd na kook yow ba mu jeex tàkk ndegam soob na yàlla suñu borom subhaanahu maaleykum wa rahmatullah mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu di leen ziar di jiital ci nuyoo bi Baye Serigne Assane Seck di ñaan yàlla mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ci barke yonent bi waaye di nuyu suñu wajuru tedd bi fi nekk fa tabarakallahu di ñaan mu dundaat at yu bëree bëri ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàgg ci kanamu njaboot gi eh, ñu ngi nuyu eh, délégation bi fi rot si eh, ci njiit li di Alaaji Baye Mor Biram Diop macha allah di di ko ziyaara bu baax waaye di nuyu kenn ci ñun ci Mouhamed Yacine Ndiaye fa tabarakallahu ñu koy ñaanal yàlla dolli jàmmam ak suturaam waaye ak ñi ak délégation bi ngeen àndal yëpp Pape Bara Ndiaye fa tabarakallahu jërul ma koy tudd ndax su ma tuddee su ma ko tuddee sama bopp laa tudd eh, fa tabarakallahu Baye Mor ñoo ngi eh, lay nuyu waaye di nuyu suñu mag ji nga xam ni moo fi nekk di Serigne Alpha nga xam ni mooy suñu taaw wayjur fa tabarakallahu waaye di nuyu suñu wayjur wu jigéen wi toog Baye Demba su yëkkati ay teraanga def fi eh, macha allah defe naa ni man sama jëmmu taxul waaw teraanga ji képp ku ko xool sa xool dina ci sedd lan moo tax sa xool ci sedd mooy góor gu tedd gi fi nekk ci biir kër gi nga xam ne dooleem jëpp ci yoonu kër Cheikh Thiénaba la ko jeexal macha allah ñun bi ñu fi ñëwee léegi ci jamono liggéeyaguñ lu jar nit di ñu yëkkati ay teranga di ñu jox waaye képp ku yëkkati teranga def ci rek góor gi tëdd moo tax góor gi tëdd ci biir moo tax nga yëkkati say teranga def fi fa tabaarakallaahu kon islam bi yëpp la ko defal bàyyi dem ba nag keroog ba ñu fa àndeek maag Mouhamed ñuy gërëm Mouhamed Yacine Ndiaye ndax maag moom benn jëmuloon waaye bi bis bi ñu ko yoxalee bis bi ba pare gaaral ko ko daa yëkkati xaalis bu bëri ni lii dama bëgg ngeen defar ci carte waaye loolu fa tabarakallahu la ma ko waxoon rek eh, cofeel ga daa jiitu démb kóllëre ga jiitu démb bay moor waral tey bi mu ñëwee daa gën di rek te incha allah ca kanam la jëm ndax fa tabarakallahu suñu wayjur wi eh, waxuma Baye Mamadou Alpha waaye dafa liggéeyal sëñ Ibrahima Seck ba ko sëñ Ibrahima gërëm dana ko fa ngërëm yam foofu laa commencé di la gërëm kon macha la macha allah Baye mu ndaw ñëwewu fi ngir daa ñëw Thiénaba ngir ci ci coobare boppam moom sëñ Ibrahima sek moo ñëw ci sama sama sama sama ëttu maam maam Demba maam Demba fa tabaarakallaahu génn àddina mu ñëw miraas ko pare daan ni su ma sañoon njabootu sama baay Demba ndaw gii am koo xam ne dina ñëw wéttali si ma Thiénaba loolu mooy ndigalu Baye mu ndaw déplacé wu euh, Ndewen ñëw fii Thiénaba waaye sept ans ñu jot a ànd bi sëñ Ibrahima tàggatoo dese ñetti fan ci kaw suuf la ko woo ba mu ñëw mu ne ko fa ngërëm yam foofa laa tàmbalee di la gërëm ba faw macha allah ndax ànd nañu juróom-ñaari at musuma laa sabal musuma laa musuma musuma laa wàññi kon fa tabarakallahu euh, loola rek la ñu gis ci tey ji ci jotaay Baye Mor waxuma euh, Baye mu benn prance bi la waaye Baye Alaja Baye Alaja ku ni sëñ Ibrahima Seck rek ni Baye Alassane ja macha allah ndax loolu la yàlla def euh, ànd diirub sëñ Ibrahima nekk ci ci xilaafa gi Baye moo yor lépp sëñ Ibrahima Seck macha allah suñu waajur yi yëpp ci kippaaru sëñ Ibrahima sek macha allah ci la ñu nekkoon soxna Maguette yaa ngi nii toog fa tabarakallahu Baye Alaja ni tëf doom ne Alfa Rama ngoog imam Alfa je Alfa Alfa Ramata lañ ko tuddee ak soxna Xadi Ba ñoo bokk ndey ak Baye kon fa tabarakallahu kon kon kon kóllëre na Baye Mor xam naa ni kàddu yi du gudd waaye Alaaji Demba ñu ko koy gërëm di ko sant defe naa Alfa Ndaw moo waroon yëkkati kàddu yi waaye nit ku nekk ak cëram defe naa su ko mënoon moo koy moo ko moo ci moom lay a rafet ndax moo a xam lépp macha kon ñu ngi di ñaan yàlla yokk ay teraangam macha allah ñun ci ci ci istafam la ñu bokk ndax fu mu jug jëm dinañu woon ni ñu suma suma seen ngeen ñëw gunge ñu macha allah ñun benn côté bi suñu nijaay la benn côté bi suñu mag la macha allah kon dañ koy ñaanal yàlla dolli jàmmam dolli suturaam ci barke Seydina Mohamed lii muy def ci islam bi mu gën koo man xolam lay defee waaye waaye waaye du wërsëg bi waaye dañuy ñaan nag wërsëg bi di di ëpp ëpp doole fuuf xol bi ci barke Seydina Muhammad lii mu ñu defal jàpp na ci bis bi zahir jàpp na ci bis kon Baye Mor dañuy gërëm rek macha allah waa TV di ñaan yàlla dooli seen jàmm dooli seen sutura dañuy tag dañuy dañuy yemale foofu suñu kàddu di ñaanalaat Baye mu ndaw yàlla na fi yàgg lool ci wér ci barke yonent bi ndax moom moo ñu na bi ci diine wax naa barki démb ci réseau bi moom moom ci tool yi la woon ak lu métti la waaye tey ñun suñu côté ñoo ngi bay suñu waar ci diina ji ci ci yaatal ci tarixa bi di ci nam na bi ngir ndaw ñi nga xam ne ñooñu féete suuf kon loolu ab moo yombal suñu liggéey tey macha allah te dañoo ñaan yàlla muy gën yaatu rek di gën di rafet ndax loolu moo seeti xolam asalaamaaleykum wa rahmatullah. Cheikh Ahmed Tidiane Ndao mbokku jullit yi mbokku taalibe yi dégg ngeen kàddu yu tukkee ci Cheikh Ahmed Tidiane ndaw jóge ci magam te mooy Serigne Alpha ndaw li ñu njëkk a wax mooy Baye Mamadou Ndaw yàlla yàlla dëgëral taxawaayam di ñaanal itam Baye ja mi nga xam ni fa tabarakallahu wayjur la ci ci Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw mi di maamam leen kon lii moom lii mu def ndono la ci moom kon lii la leen Thiénaba TV doon dégtal ci teewaayu am Mouhamed Mbuub El Hadj Baara Ndiaye ci ndigal lu tukkee woon ci El Hadj Demba Sarr pour ñëw ci rakkam soppeem te mooy